jërë ngeen jëf mbokk amateurs yi jërë ngeen jëf yéen ñuy siiwal su Thioket TV kon li ñu koy wax rek ñu ngi toog benn champion bu nga xam ne mooy Ibou Ndiaye Obali Ibou Ndiaye Obali def na la si làmb ba muy mujjee lu na si làmb tey ñu seet si ko pour waxtaan ak moom ndax tey ku ñu ku ne Ibou Obali rek xam ko si simple mais tamit lig frappe da si def da si manque empreinte am lig frappe bi gis nañ nag mbeur bu nga sété pour jox ko mu bañ dinañ ci waxtaan ak mom ci waxtaan ak mom ci walu deko deko ndoy mi parcel nu ñuy 100% parcel gis ñu ko mo tamit 100% parcel dañ waxtaan ci lepp dañ ko bay mu nuyo paré rek mu ñay ñu ngi lay ziar yeah ziar na la wa choker tv ginaaw buñ sante yaag ñu ngi ci sante bi sante ci ñaari wajur wa di gën nuyu bu baax di gën sante di gën kërëm wa di gën ñaanu jamm di nuyu mbokk internet yi ñuy suivre yépp à travers choker tv mm -hmm ñoo ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di ñaanu ñëpp jàmm di ñaan réew mi um, suñu borom def fi jàmm. ñuy seetaan bu ñu bëggoon xam kuy Ibou Ndiaye Obali ak Ibou Ndiaye Obali ñaata combat la bëri. waaw man de ibu Ndiaye Obali bëri na sept combat arène mhm. sama premier combat arène daa ngaa daanu mais yi si teg yëpp am naa six victoire. Mhm. Mhm. am nga sept combat am six victoires mais gis nañ saa yoo ñëwee si làmb coow day bari saa yoo dugg see lamb. làmb coow day bëri saa yooyu ñëw si làmb ñu gis public bu ngay dégager si loo xamante bëgg bëri na mbëri simple yi bëri du ko dégager lan la. waaw c'est parce que boo gisee googu mooy tey dafa am public boo xamante ni dañuy topp comprendre nga dañuy topp depuis mbapat comprendre nga te dafa am nit yoo xamante ne maanaam gi ñu soxla si làmb Ibou Ndiaye da leen koy jox man su ma bàkkoo day neex waaw su ma ambiancé day neex waaw te suma bëree tamit day neex damay ñëw def fulla ak fayda ak jom comprendre nga moo tax am na ñoo xam te ne ndeysaan loolu la ñuy toppee quoi waaw euh, public buy topp Ibou Ndiaye nag buy bëre suñu borom rek moo ma boog ak ñoom waaw muy waa parcelle un ba 26 xam nga surtout nag suma waa koñ waa Inte 7 xam nga ak suma gaa yëpp vraiment dafa am gaa yu bëri de dañ dañuy bége Ibou Ndiaye waa Seras waa Difoncé waaw waa Grand Yoff vraiment dañuy am ay supporters yu juge fu ne dañuy naan sax du ñu mun a ñëw seen kër mais dañuy jubal directement jël taxi jubal directement kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp waaw. Ibou Ndiaye Obali moom doomu parcelle la Ibou Ndiaye ban écurie la nekk si parcelle. waaw Ibou Ndiaye doomu parcelle maa ngi nekk écurie parcelle Mbogo waaw parcelle Mbogo gaa nekk écurie Moussa Dioum muy suñu grand bu baax ñu ñu koy ñaanal suñu borom yërëm ko taxaare ko àjjana parce que moo tax tey ñu bëgg bëri xam bëri waaw mm-hmm. ah, Moussa Dioum moo doon dem di bëri ji di daan di ñëw ñuy daw buntu këram di yuuxu mm-hmm. ñu dem ba kooku tey xam nga ubbi écrit ñu ñëw di ci foo di ci foowantu di ci bërintu waaw mm-hmm. ah, dem ba suñu grand yi nekk foofu noonu waa écrit Parcelles Mbogo bi yëpp ñoom Pape Diop ñoom góora bu diis ñoom Yanda comprend suñu grand Yanda borom Cambérène. fekkente nga ak Yanda si écrit bi. waaw boobu ñoo ngi nekk ay boy ndaw ñoom suñu grand ga. xam nga ñun ñoo ñu man ak man ak Franc daal ñoo fa ñëwandoo daal écrit bi. Franc yéen a ñëwandoo si écrit ñoo ñëwandoo nag si écrit bi comprendre que di foo Moussa Dioum di ñu jàng bëre xam nga ak suñu père Gaag Ndiaye ñu dem nag ba commencé tëgg grand yi commencé màgg noonu lañ dem xam nga ba am suñu benn grand boo xamante ne ñu ngi koy wax Alpha. Mhm. Eh, grand Alpha Ba Alpha moo ñu uta licence man ak Franc mhm. moo ñu uta benn jour booga ñu ñu ut licence dem CNG mhm. ñu tàppee ñu suñuy licence. waaw loolu moo indi affaire bi ñuy bëri waaw ba yegg fi ñu yegg si parce que ñun parce fi fii lañ juddoo fii lañ yaroo comprendre nga. Ah, parcelle bi nga juddoo. waaw ah, fii laa juddoo fii laa yaroo. waaw hôpital John Kennedy bi nekkoon fii euh, église. te ñu tuxal ko léegi ma Abdou. Mm-hmm. Eh, man fii laay voté unité 10. parce que fii laa juddoo fii laa yaroo. fi nga juddoo nga yoroo ñu dégg ay doomu parcelle na cent pour cent parcelle dañuy entraîner seen biir di contact seen biir muy si ñoo si gis Ibou Ndiaye mu àndak ñoom di contact di ànd ak ñoom 100 pour cent parcelle lan la. non non pourtant nag du question de dara parce que gars yooyu gars yëpp ñu ñëpp ku si nekk da nga nekk si écurie comprendre nga ñu ñëpp nag ay frère lañ dañoo yéeneente jàmm. tey ku si mel nii suñu grand di si jiite suñu grand Modou mooy suñu kilifa. waaw vraiment muy koo xamante ne nii vraiment daf ñoo uuf ñëpp. parce que Modou tey bu amee combat tey bu amee ko ñun bu ñu amee combat ku si nekk nekk mbër bu ndaw di yeewoo parce que bu amee combat Modou daf siy jàpp sama combat bi passé maa ngeer ànd ak ba fii si tagg bi Potigo wàcc mu yëkkati xaalis bëri jox ma ko waaw jox ko Potigo Potigo ñëw jox ma ko waaw Potigo paas ma ko téléphone mu ne mu conseillé ma vraiment muy suñu grand te sama combat yëpp noonu nga ciy def. parce que Modou ni nga koy gis noonu dafa bëgg jàmbaar. waaw dafa bëgg bañkat waaw moo tax vraiment suñu grand ga te pourtant yooyu noonu yëpp si ñoom gañ ko gisee mook ay Moussa Dioum vraiment tey bu ñu demee booy yegg fi ñu yegg si nii tey ak jom bi ñuy ànd ak si gàmb waaw tey ñoom def nañ si bu bëri quoi vraiment waaw ak gars yi sama gars ak gars yi nga xamante ne yëpp ñoo nekkandoo fii biir parcelle xam nga muy ay franc Goro booy tag fa Ñang Baago xam nga giiro Seras ñoom Garga 2 xam nga champion yi yeewoo parcelle fii yëpp waaw ay aada booy boo ak sama gars yi maama Mamadi Ndiaye ñun ñëpp vraiment ay doom xam nga ñun ñëpp ñoo bokk pourtant gars yi ñoo koy gis ni parce que tey xam nga tey man euh, écrit par sa mbogo mun nañ ne maanaam comme si tenoor man rek maa fa nekk ak booy yi tey su ma naree di bàyyi parce que mboogoo dem jàmbaar bu yàggee booy mun nañ découragé ñu bëri na googañ comprendre mooy bu bu ñu gisul si 100 pour cent parce que bi rek dañuy foog ne mais ku si am open press comprendre nga open press Modou bi passé ñewna xam nga eh, franc bu open press damay dem comprendre nga fi may waxee waaw mais tay bu googu weesoo tay eh, ñun ñëpp jamm gañ sék tay boo ñu man ak ñang baago ñu tok waga ma giro waga ma goro sok dañuy tase sag di entraîner waga ñu tassé din ya di entraîner ndo waaw amuñu benn programme wax deug ay ñoy gis gis-gis na ay ñi and Ibou ñay andu ak ñe mais yow amoo ak ñom benn programme deug yàlla aw ak ñom benn programme ñoy ñep goro suñu grand goro goro suñu grand frère comprendre nga fi waaw ñun amuñu benn programme wax dëgg yàlla. xam baax ngay leeral pour ñuy seetaan mun a xam affaire boo dul leeral la gars du duñ mën a comprendre quoi da ngay bëri ay soppe yoo ne ñu nekk parcelle na Ibou Ndiaye duñ ko tey ngay leeral dafa am solo. waaw waaw noo nga demee parce que gars yi ci bëri du ñu comprendre quoi xam nga dañuy foog ne yee da ngay siisu wala da ngaa jël sa yoonu bopp wala gëmoo gars yi te demee demeewul noonu xam nga nit ku nekk ak suñu borom nu nga bindee euh, am na ñoo xamante ne nii tey manam man dama yàgg nek nit ko am man dama yàgg nek nekk bañkat comprendre nga waxe waaw man dama yàgg fayta suma bop di reyante ak ye bopp te yaakaar naa ne bama sit si si nekke ba geegi suñu borom mo ngi ma siy dimbali parce que tay amo yu mbeur di genné parcel te duma ko ci genné parce que dafa am ño xamantene dañu dañoo bëgg bañkat bëgg jambar comprendre nga waxe may waxee waaw tey noonu kese mais man ñepp ga sék ak ye wax deug yalla amateur yi dafa am ben setlu buñ def nenañ nañ à part modlo ñang balo ak Talfa yow libal nit ñi ci nena bok ngeen ci mbeuri gëna mobiliser parcelle motax mëna dina laaj Ibou Ndiaye Obali lan la digënté ak wa koñam ndax tay stade sa yo ñëwé car sha allah laf da ngay mobiliser lu mbeud du mobiliser mbeud lu mi jënd bolog bié da koy jënd bolog bié tay sa digënté ak wa koñ bi sa digënté ak xalé yi lan la waaw lépp xam nga tey ku ci nekk tey ku ma xam-xam ne man moom wax dëgg yàlla yoruma xoolu ki ñaan foo ak jàmm ak kaf ak gaa yi xam nga c'est que ñëpp jàmm waaw tey boo gisee bu ñuy dem di bëri ji tey gaa yëpp suñu am di jàmm yëpp kenn du des yee da ngay ñëw comprendre nga tey boo boogee public bu parcelle bi ak public bi nga xam te ne ñoo ngay topp lutte simple xam nga mooy mooy war a gaa yi di gis mobilisation boobu noonu Ibou Ndiaye di indi ba pare na nit yi kenn moomu gën comprendre nga mënoon naa am fii nii combat am sama indi samay chaise xam nga indi sama nag indi sama yëpp te du ma gis ku fi ñëw comprendre nga fi may waxee mais nag bon su ma amee combat maa ngi sant yàlla gars yi dañuy jóg ñëw ba pare nag maam ay kilifa yoo xam ne nañ nekk sama ginnaaw di ma jàppale xam nga vraiment xam nga vraiment aw ma programme mu ay billet xam nga am na mbër yoo xam te ne bu ñu amee combat nga indi leen ay billet seen fit dem na parce que boo xalaatee ni nga war di dem di jaayee ay billet mais man dafa am kilifa boo xamante ni maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm ku si mel ni Go Faye waaw Papa Kori fay goo fay maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm parce que tey yombul xam nga fi may waxee euh, fa taxaw jàpp nga taxaw carrément népp siif la rek agressé la Go Faye moom ngay tudd noonu man dégg naa sax moom moo ne promoteur bi Modou Baye Fall na la wut adversaire waaw non pourtant nag du Modou Baye Fall kese wax na ko promoteur yëpp nee na gan utal sama boy bi combat o beug utal combat bu gen ko fay mom comme man buma kenn fay nañ fay adversaire bi rek wa mom après mom dina ma gëjanti gëjanti agn yek combat bek gi ngay dem ci serigne yek xam nga gi ngay billet yi bu indi say billet mu jënd ko. man gis na ben combat bu la ben promoteur doon lijeenti wa noo ko mais bu ko si wax bu ko bu ko. damay wax damay yoole. non non bu yooge bu wax mbuur bi parce que moo tax ko ko dëkk bi dafa am ñoom te dañoo soxor tay mun nga wax turu mbër mi mu am ñuko ko nan ko di yaq te pourtant da ngay gis ko ngay naan ñu wax nga combat nit naan nga bu ko jëg nangam nangam te pourtant kooku naan bu ko jëg wagaay mënu si yow 10 000 te pourtant mbër bii nii ñu may wax nii nii nii nii nii ay millions yu bëri ngañ ko fay. nekkul xam naa ko man Ibou Ndiaye ku bëre ak man da am xaalis parce que xam tax. gis waaw lim nañ 4 mbër ay champion yu mag. parce que champion boo xamante moom damay jox misaal rek yéen ñaara tolloo doyoo tolloo lépp car macha allah gis naa gis naa ko ménagère am si waxam taxaw na ba si man ne ma fay nañ ko si Ibu Ndiaye Obeuly nangam te bëgg na ko absente. Mm-hmm. waaw parce que xam nga tax man dem naa ba euh, tey sama papa sama kilifa bu ñu faire Abbas rakku ministre Ba. waaw Abbas ak ñoom Nazer ak ñoom ñëpp maa ngi nuyu parce que ñoom ñëpp dañ may jàppale. ay responsable politique wan saw. Eh, man dama am kilifa yoo xam nañ nekk suma ginnaaw di ma jàppale bu baax di leen sant bu baax di leen gërëm. yenn programme yu mbëri am moom wax dëgg yàlla man maa ngi siy sant. parce que sama combat bi passé nag bi ma regroupé ministre moo ma ko jox Amadou Ba yëkkati booga seek enveloppe indi ko indi nag bi ba pare indi xaalis bu bëri ñëw yëkkati ko teg ko sama gox. riisoon na tamit. bi tamit journaliste yi journaliste yi bu fa gàddu sa bi ngay ñibbi ñibbi waale nga vingt <laughs> ah, <laughs> ah, open press bi gars yi ñëw xam nga open press bi. Ah. indi mbayang indi sono boo xamante ne nii indi wu sax animateur bi Pikine nga jóge indi ba sono yoo baafu yoo xamante ne nii xam nga tegoo yëpp gars yi ñoo si waaw gars yi ñoo siy jàppale moo tax waa na yow mbër bu nammul dara te damay ambiance nga indi cosaan comprendre nga moo tax damay ñëw kii te et xam nga boo nekkee mbër moom te ne boo amee combat tey ki nga fay taxaw si billet yi ñëw ñu ne nga kaay teg billet yi ñaata nga nga ne temps ñu bind chèque jox nga ne nga fay promoteur bi waaw kooku da ngay sant yàgg moo tax man nekkuma mbër moom te ne war naa di toog di am programme mu combat pour bari est-ce toog le 3 décembre. ba ba ba ba février amoo combat est-ce loolu yoon la. yoon si koo xamante ne nii day entraîné gisoo des fois damay jékki-jékki toog ba sama yaram laaj mbappat sax xam nga ma ma ma ma wàcc tàngal yaram bi xaw a compétir tuuti xam nga pour faatagu ku ñëwaat mais man dama demoon dama taxawoon carrément ne man moom mbappat moom pare naa ci bu dee mbappat kese mooy taxati nit fayeeku moom non mbappat bi moom wax dëgg yàlla doy na sëg. lan yéen mbër yi ngay yéen mbër yi yéen ñiy jóge si lig simple du ma ne yéen mbëru lig ne rek xaw jóge si lig simple ñëw yéen mbër yi fréquenté lig simple laay wax hmm. yéen la moo tax boo demee ba si biir yéen adversaire duñ leen nangoo jël ba ngeen commencé découragé. waaw mais parce que xam nga problème bi mooy gars yi xam nga tey xoolal instant bii nii ku si mel ni rëg daan na bombardier gis nga ko fi mu fi mu nekk instant bi niveau bi mu nekk te pourtant ñaata mbër yu mag ñoo ko wër mais ñeme wuñ ko jël parce que xam nga lu tax maanaam fi mu jaar la dafa jaar bàngo xam nga yeneen grand yi nag mbapat nañ d'accord mais ñooñu seen mbapat seen jamonoy mbapat ak ñun suñu mbapat bokkul comprendre waaw ñoom ñoom seen jamonoy yu mbapat suñu mbapat ak seen formation yéen bokkul. suñu formation dafa métti. waaw comprendre nga fi ma waxee léegi nag yow boo si jugee rek. Mhm. yow boo ñëwatee ay quelques réglages nga ñuy defati ci yow muy ay côté boxe. Ah. comprendre nga xam nga affaire yooyu mais nekkatu côté ay entraînement ak. waaw yu ñuy réparé te du bëri. Mhm. comprendre moo tax dangay ëpp sens mbër mi nga xam te ne dañuy dafa focaliser wu si bëre dóor kese kese kese. Mhm. comme mbër mi nga xam te ne à bas ba ni muy jëmee mag mbapatu defu dara. waaw kooku boo ko jàppee rek ay mboqam jub dem ñibbi. waaw noo dafa am sax bu commencé ñëw si làmb. ku ci mel ni Zambala ku ci mel ni Serigne Ndiaye ku ci mel ni Franc ku ci mel ni Reug Reug sa sa génération lañ boo dégg man sa génération lañ yéen a nekkoon woon fee di ko toj ku ci mel ni ordinateur yéen a nekkoon woon fee di ko toj ngeen commencé ñëw bëgg jël ci lig fara bi bëgg a amee te super lourd bu mel ni yow dafa manqué si làmb tey lan la. waaw génération boobu noonu nag ñu ñëpp bi gaay gars yi xam nga tey Zambala ku su mel ni Zambala tey waru am programme mu bëre sa waay sampion champion ga ndaanaan barki arxuraanu karim gët simple maanaam bu ci continué woon ba tey dina ci am du jeex mais foofu noonu nga doon gën a ci moom parce que du te imagine toi tey bu fekkoon ne tey mbëru mbëru mbëru mbëru mbëru koñ ga sax mu xaw a métti ci moom mais moom mbaru dëkk nga Zambala bu jugee mbaaw bi yëpp topp ko kon kooku ana gan moo war a mun a tax muy am programme mu bëri voilà léegi nag tey imagine yow kooku noonu tey dafa war a bëri nga ñëw uh, Malika général Malika côté mbëbës bee côté boobu noonu yëpp si ginnaaw côté boobu yëpp bu bu zee jugee ñëw ñëpp jug topp ko xam nga ordinateur tey bu jugee mm-hmm. xam nga uh, waa ñaaxar côté dëkkam gars yi jugee foofu noonu jël bii si ñëw supporté si ko comprendre nga waaw comprendre nga fi may waxee léegi nag imagine toi yow mbër yooyu ñun ñun waruñu am ay programme mu adversaire mm-hmm. ñun dañoo war di bëre parce que tey promoteur gi ñuy ut. dafa ne ci ñun. comprendre muy jàpp xam nga tey sens bi ma ci xaw a am nii sax man Ibou Ndiaye mooy comme tey man gi ma juddoo parcelle. yaroo fi maagee fi gars yi xam nga gars yi bu ñu la miinee. nga yaroo seen kanam juddoo seen kanam ngeen màggandoo benn génération. comprendre nga yow yow yow yow boo amee combat ñoom maanaam gàcce ngay doon sax ñu toog bañ nga ñëw supporter si parce que dañ nga miin dañ nga xam. comprendre nga mais bu fekkoon ne tey comme dëkk ba rek nga jóge ñëw boo amee combat tey euh, day xaw a métti. waa dëkk ba rek ñoo mun a ñëw ak quelques personnes. xam nga fi may waxee waa waaw day xaw a kii quoi ñoom Tyson 2 yeneen gars yi waa yenn gars yi waaw mais nag man dama sant yàgg quoi parce que dama sama sam benn tànk daa nekk fii sama benn tànk nekk fii su ma amee combat ñëpp a jàpp si mm-hmm. moo tax ngay gis mbooloo moomu noonu mm-hmm. di topp euh, si si sama sama ginnaaw mm-hmm. tey mbooloo boobu yëpp di topp sa ginnaaw tey performance yëpp nga xëy def si làmb tey ngay toog di di bëre la trois ba février mënu am combat mais damay ñëw si gala bi ñuy nii proposé woon nañ si gala Gaston waaw proposé woon nañ ma si. proposé woon nañ ma si euh, Makan wax nañ téléphone man ak moom Nazer raxu Amadou Ba bi may wax ni moom ma ko paas. waaw ne ko sama boy bi damaa bëgg mu bëre ñu waxtaan ci affaire yooyu noonu mais après si ga euh, ménageur si nga mel si gañ si dugal duudu ko duut saane te xam nga ne voilà quoi mu ngi noonu. yow ba combat bee yàqoo sax woowuñu la ba combat Général Malika mu si génnee kenn woowu la si. non non instant boobu noonu mënu mënuñu ma ci woon a woo parce que xam nga rek booy bi Doudou Sané daf ci nekk. Ah. daf ci nekk ba tey xam nga bu fekkoon ne moom moo génn. mun nañ ma woo remplacer ma man. waaw ah, yàgg Doudou doo leen bëre. waaw demee quoi. dëgg la yàgg Doudou doo leen bëre mais tey am na ñu nga lim fii ñoo xamante dox nañ seen combat. Eh, waaw gars yi man de sa way suma waxone fi ñaata mbeur wa nga wax ga turu mbeur yi ñuy dox seen combat damay toga promoteur ni sax mu woo mbër ma tuddu man ma bo mayen bo mayen bo ma dimbali won ngir yalla ak yonenti may mo ma tuddu léegi non non non non dama ko ñaan te yaa nga tax bu tuddu parce que xam nga dama dama sey yëg ay information yu bari barki Serigne Bamba dembu rek amna na grand mo ci mujjee waxtaan ak yow ndaysan ni man information yu werté wor la am ma duma taxantou ni ne ah, wa wax ma kon yeen mbër wax ma ci kenn rek wala ñaar. sa diggante ak dox nañ ko. waaw ak kan. sa diggante ak dox nañ ko. waaw ak kan pourtant nag ñooñu ñëpp. sa diggante ak dox nañ ko. waaw ñooñu ñëpp dox nañ ko mais gis nga mooy. xam nga ne woon am naa suñu information yu nga information yu wóor yi ngay wax. mais nag gis nga ñi nga wax ni yëpp. alxuraanu karim ay champion lañ ku si ne mun nga si ñoom mun nga daan Ibou Ndiaye comprendre nga fi may waxee tey su euh, ma grand Jordan dem ba dañ ma ne làmb la parce que parce que parce que dañoo dem ba comprendre tuñu quoi comprendre tey boo xoogee Jordan kañ nga gëj a dama ne man maa ko wax dama ne yaa Jordan làmb la. Tyson 2 la neexee ñaan ko sens am nga si droit mais Jordan si ñaar adversaire de taille la. te Jordan moom tamit du arrière. ba pare si ay défaite xam nga làmb. may rek làmb Zarko dafa defaraat làmb te mbëri bàyyiwuñ ci xel da tey damay jàpp ni mbër boo jógee si ay defet day baax nga gis xale buy ñëw nga may ko loxo nga te tey xam nga ne yow Jordan tey maanaam Jordan tey man ak moom maa ngi maa ngi maa maa ngi ngoom arbitre rek taxaw suñu diggante ne ñoom kii nu mu tudd sax euh, ñoom kii Sitor ak yooyu ne leen ndax pare ngeen ñu jàpp temps bi arbitre sif nga génn sama diggante man ak mu ngeem mu ngeem bu verte boobu ma ngeem bu sama ngeem bu xonq bi ñu war a daw daje rankum. mais kan bañu la. non xam naa ko Jordan non sama grand bu baax nga moom. non boo déggee man la bañu la. non bañu ma c'est que c'est que ménagère am dama ko xam. te te am naa ne ménagère am problème piri moo doxoon. waaw sa combat moom taxawul. waaw programme mu prix nga woon. programme mu prix bu ndaw nga woon. jag jag si moo ko bëggoon. waaw mais di ko ñaan nag. suñu grand ga Jordan ak keneen ku dul Jordan sax mais di ko naan moom tamit na jéem na jéem a na. exemple laa gis naa ku si sori lool. maanaam maanaam maanaam ñoom nañ jéem a wàcc prix bi rek tuuti parce que bu dee man sama côté man naqariwu maa bëre man du ma du ma dóor kenn. Jordan bu arbitre prix bi damay jéem a xoo tànk yi rek daw jàpp. bëre ko mel ni yow xaalis bëri tamit. <laughs> waaw kooku tamit. xam nga li problème bi gars xam ne yaa waxut namul dara. <laughs> gars yi nag wax dëgg yàlla xam naa ne moo tax dañuy naan xaaral kii moom comme nag pare naa pour sacrifier sa mbop xaaral ma laaj xaalis bu bari. yee mais nag xam nga tey ñoom tamit imagine toi yow Jordan ñaata année balance nga def. bëri na bëri na. comprendre nga fi may tey bu ñëwee Ibou tey bu bëreeg bu njaay tey am benn. am am am am benn 5 millions bu mu def si poosam tey. Ah. mais loolu dara dàqu ko. bu tam woo ménagère joron ak tabaski bii di ñëw mun na si 3 millions yi bu duggee côté Fouta desi desi desi desi da si da si da si da siy jënd ay kii xar ak koor gi ak koor gi ak koor gi nii non koor gi sax dafa koor gi sax dafa jege maanaam tey bu jàppoon benn 5 millions bu dëgër jël 4 millions wala 3 millions 500 dugg côté Daara root fa ay xar yu 80 80 comprendre nga toppatoo ngeen benn 3 mois 4 mois fii ak tabaski bu ngeen jaayee googu juróo ko 15 millions jël avance bu def si lool mais dafa war a jël avance bi di ko di ko nuyu au passage vraiment jantal grand nga Jordan comprendre nga fi may waxee di ko ñaan mu may ma sens rek. comprendre nga arbitre ne prix ma daw jéem a jàpp si tànk yi mu dóor may iber ki xeex ak man hmm. parce que moom day raag gis naa ko def te na xool man ak moom suñu combat. Ah. taxawagu mais damay seetaan ay vidéo waa Mbaye. Mbaye maa ngi lay ziar. allo. yaa ngi en si émission bi Ibou Ndiaye Obo léegi nii yaa ngi en direct émission bi Mbaye. waaw maa ngi lay ziar. man la am maa ngi toog Ibou Ndiaye Obali en direct nee na ndax sa mbër bi may chance joroon. Ibou Ndiaye Obali. waaw waaw yaa ngi en direct kay yaa ngi en direct si émission bi. maa ngay dégg. waaw mais combat bi combat bi kay ñun soxla nañ ko wax mm. Mm. déggante woon nañ ceeg euh, je crois que Modou Baye Fall. Mm. ba joroon joxe na akooram. ba ñu waxtaan. mais benn som bu ndaw moo ñu waaw som bu ndaw boobu nag ngeen fexe nag joroon xaw a wàññi bu ndaw boobu nag. xam nga lem joran loxo Jordan. waaw dañuy joran dëgg. waaw xam nga. Hmm. Jordan 5 la doon laaj ma lem loxom hmm. ne ko ba nangu. Legi léegi fekk ñoom euh, am benn waay bu ci Anta. Hmm. léegi ba mu ne woon kii ma ne ko ñoo joroon comme fay nañu kaat nañ jël kaat man hmm. ma woowee Modou Baye Fall mu ne ma man maay tëgg trois cinq laa mën ma ne ko nag man mënu mag laa di wax ñaari wax hmm. mais tey tey bu ñu pare woon léegi woo ma da ci kaat yi d' accord Ibou Ndiaye Oba léegi nii yaa ngi nii Ibou Ndiaye Oba léegi nii yaa ngi nii en man daal instant bii nii daal combat bi dafa war mun a taxaw xam na ne maag Gilles Balde dañ koy jàppale waaw mu ngi noonu woo sax euh, kii nu mu tudd waaw woo naa sax bàyyi laat pour dégganteeg pour mënoon a dégganteeg yow. ndeysaan wax nga dëgg. waaw wax nga dëgg waaw instant bii nii de combat boobu noonu de combat boobu de mooy combat bi Sénégal gi yëpp bëgg moom. Ibu waaw nga maag Gilles Balde waxtaan nañu Gilles Balde na naa ndax ni nga mel ci Gilles. waaw waaw. léegi carte yooyu ñu fayoon ñu koy ñoom muy bañ. waaw d'accord naa pour ñëw jël ko mais bi ñu woowee Mourou Baye Fall dafa ne ma 3-5 la man. kon kon léegi waa xaw cee dëgër. mais tey tey bu d'accord léegi ci 4 millions du ma sax tàggu joroon. léegi Mbaye léegi Mbaye dama lay dama lay coupé nekkaat si émission bi en maa ngi lay jëlaat léegi léegi Ibou Ndiaye yaa ko déggandoo. waaw ah nekkul ma maa bëgg combat bi. waaw yow moom da ngaa bëgg combat bi taxaw. ah nekkul maa maa gaaw maa waxtaan rek pour sa combat taxaw ba dañoo jóge fi ndaw loolu war na tax sa diggante ak Jordan mu taxaw. non du yoon nag. waaw waaw waaw weccet boobu moom waru mën a tax combat bi bañ a taxaw. man est-ce que ko jox Jordan sax. weccet boobu est-ce que du ma kóol gi jël. bu physiquement ngeen taxaw nii joroon taxaw gauche nga taxaw droite. waaw ah. ba Serigne Tag ak Mama Diop sotti ma biteeg bi. xam nga xam nga combat noonu. waaw du combat yow du combat ay paa xale. mag ak moroom ak moroom la sax. Jordan bu la magee bëriwul noonu. mais ay génération ngeen. waaw non Jordan nag gis nga nag moom ma mag fuuf Jordan gis nga dama daan dem géej jamono ji Eumeu Sène di dëkk fii. nu tudd Eumeu Sène bi muy dëkk. jéegi mbay Jéeri Mbay waaw Jordan doon soog soog américain am yooyu. moom moom moom moo la mag ba muy bëre bëre woon. bi muy bëre. boobu ñun dañ daan dem géej suñuy ñib si dañuy làqatu. boo déggee wax la boo déggee wax la. waxee foofu lañ daan romb di ko gis naan mooy xoolal waa ji ni mu toog. Jordan mu doon ànd ak Eumeu Sène doon soq kawas yi ba fii moom li may wax nii bu ko seetaanee dina ko xam xam nga affaire kaana daf ko yàgg a neex mais kooku tey bu ñu demee tey barki Alxuraan karim saa bu ñu jugee waan euh, BCEAO mm. temps booy saa bu ñu jugee waan BCEAO suñuy ñib si buntu kër il faut ñu jaar buntu kër Tyson parce que dañuy naan fii nga ay ëmma dëkk suñu rombee foofu noonu ngoon maa dañuy gis Jordan toog dama koy romb nii di ko xoogaat kooku tey bu ñu demee ba war taxaw nag di bëree comprendre nga fi naa ne boo wax moom da ko Jordan fii ak ngoon. gëm naa ko combat bi suñu grand parce que man xam nga grand yëpp di ma may sens. man du ma wone benn manque de respect. waaw da gis mbër yoo xamante ne dañ leen dégg micro ñu jàpp benn ba grand bi sax après da ngay jéppi mm-hmm. bañ a bëreeg yow maanaam rekk suuf da ngay gis grand yoo xamante ne nii am na mbër yoo xamante ne xagaatu ñoo bëri ak ñoom comprendre nga mais man moom mooy li may wax rek Jordan suma grand nga Tyson 2 suma grand nga comprendre nga Bébé Saloum suma grand nga yaa ngi dégg waaw Forza bu fas sama grand nga waaw dama leen di ñaan sens rek ñu may ñu sens comprendre comme ñu nekk nañ ay mbër yoo xamante ne nii vraiment. mais daa mel ni yaa bi booy xool lu ko tee taxaw nekkul lu bari. non combat bi lu ko tee taxaw du bari te xam naa ne émission bi bu si jugee. promoteur dinañ daw song ko. mais damaa xam ne man Ibou Ndiaye Ibou Ndiaye Jordan wala Ibou Ndiaye keneen ku ko boogee si yenn journée yu mag yi comme ay journée Sa Thiès nangam wala kii ñu def ko ay spécial bi non kon nga gisu garaaw. non man ñooñu sax duñ ma ëppale supporter. foo nga bëgg foo bëgg ñu dugal ko fa. ah fu ñu ko munti dugal maanaam tafaatin baaga gay beeg parce que man. maanaam xam même waa jabaar yi le premier mètre comme franc bi nii. waaw xam nga ne googu tamit dara daaxu ko. yaa joroon spécial bi waaw. xam nga ne kooku dara daa ko Franc war a génn parcelle man ma génn. li muy dinañ ko ko fay Franc bu waree génn parcelle ma génn parcelle parce que du fi des. mais waxtaan wax dëgg laaj bëriwul. Franc Franc kenn foofu waaw jo jo. moom bëriwul nañu waxtaan rek. non tamit na comprendre te xam ne Jordan moom mënu jaay benn bogog tolluwaay la mel. waaw. <laughs> yow yaa mu jënd xar. <laughs> waaw mu jënd waaw gis nga moo tax ma duggoo ko foofu. moo tax ma ne nga xaalis boobu noonu tey bu ko jotoon mu dem jënd si ay xar def opération tabaski day am dara. comprend nga fi may mais tey wax dëgg yàlla tey tamit xam nga euh, Jordan tey mm. euh, boo ko tëggee tamit. Mm. maanaam tey bu Ndiaye nga bëgg a rek mais tey Jordan tey mu maanaam euh, bëggagu benn bëggagu billet tey man pour mu jaay ko xam naa ne programme ngay doon. yow yow yow yow parce que dégg naa dëkkatu Pikine. waaw mi ngi dëkk ba côté Sébikotane. waa xam nga tey gars bu ñu la day jógee Sébikotane. Ah. war a ñëw tamit. mais tey sa réew. <laughs> bëreeg ku mel ni Jordan. Ah. war a bokk daf ci que dafa bëreeg Sa Thiès. kon bu ne da nga ko doon romb. bëreeg Forza. waaw waaw waaw bëreeg. Euh, daan Forza teg ci kii mbuur nu mu tudd. bëreeg euh, bëreeg bëreeg. non non bëreeg kii Mbour waaye euh, Pakaga. waaw moo Pakaga bëri nañ Jordan Pakaga. bëriwul waaw Forza Forza Forza ak Paka nga ñoo bëri wax nga dëgg. mais xoola yow xoola sa waay combat yooyu noonu yëpp mu bëri te combat am yooyu dañoo métti xool ko combat moog Forza démb ngaa ko mujjee seetaan. Jordan Dóorén teg Sodra ba ñu génn saako yi ñëwaat. kon commencé nga ko topp ni bi ni ma koy seetaanee. <laughs> Jordan nga xam ni combat day taxaw. non dama xiif man dama xiif Jordan. Jordan arbitre ne prip. comprends parce que. ndax bu ma combat bi ñi ngi ko commencé dox depuis décembre. Jordan pied nga fi may waxee. wax lii si émission bi. comprendre nga Jordan. génne secret bi si émission ah, non non mun naa génne Jordan wow du poroga wow du Thiès mun mais Jordan dama nga ma dox ci kaw ba maa ngi ngoom génn man xam nga ne sama combat Ibou Ndiaye. bés bu ma naree arrière ak mbër. surtout a bëree ku mel ni mais dóorante bi maanaam mbàccum gerte gay maanaam stade bi jour boobu noonu grand combat bi sax parce que Jordan maa moom dañoo war a bëree ba génn saako yi ñëwaat. affiche bu amateur a gis Ibou Ndiaye tolloo bëree koo xam ne ñoom gabari. tolloo ah, moro foofu nag dañuy naan cinquante mais bu ñu ma fi joxaatee benn grand frère ñu naan ah combat bi de Ibou Ndiaye moom parce que moo tax. non dama conseil ma lay jox gis nga boo fi jël ah, yàlla ma yàlla baal paa yi màgget pour gars yi boole si course bi du yomb de xam nga lool. non doo dem fenn sax. ak loolu lépp risque la. waaw doo dem fenn risque ngay jël pour mun a dem sa yoon. Mm. parce que tey bëgg nañ bu ñu ay Jordan. Mm. suñu papa Bombardier ni mu defar ak Reug Reug bëgg nañ tamit ñu may ñu sens yooyu noonu. est-ce que génne si Jordan tamit yomb na. non Jordan moom yàlla man du du du du Jordan moom du du du du du Cees quoi. du Cees. non Jordan du Cees. nii xaaroo si yow nga jël Jordan pare al ko ñaari pare ñu koy jàppale. a ko ñaari pare waaw mun na am na mais xam naa ne comme sama combat maa ngeer rek man non. boo ko neexalee gëm naa da lay ko ñaari pare. Jordan Jordan jëga combat bi boo jëgee combat bi. dinaa ko boole kii fa gu mag. combat bii paase. Euh, comme ngeer bu sab euh, dinaa ko boole kii fa mag bu mu dee dee dee foofu noonu xew téeméeri junni yooyu sax yow mun nga ko faa mun nga faa jëgee ko ëpp. waaw su ma ko boogeeg waa ji man xam naa ne su ma ko yóbbee ba si waa ji ne ko kii mu ngi nii mu ne ma waaw ma ne ko ñoom ñu ñaar ñoo war a bëri waaw dafa bëgg nga jàppale ko si billet yi ba mu di fa am benn 500. maa ngi yóbbu si Amar Ba nii. waaw mu ngi noonu. man ma nekkoon mbër dama jël si avance kii rek moo ma jaax. waaw léegi nag mu ngi noonu moo tax nag xam nga di di di di wax gars yi daal ñun daal pare nañ ubbi na suñu buntu promoteur yëpp mbëri tamit ñu ngeen di ñaan grand frère yëpp ñu ngeen di ñaan ah, euh, sens. comprendre suñu gars yi nga xamante ne nii tamit instant mënu ñoo fexe ba am combat ku si mel ay général ay Zambaga xam nga ay ñoom. Serigne Ndiaye 2. ñooñu instant bii nii nii may wax ak yow dañoo war a bëri. gars yi nañ tëgg combat yi. comprendre nga bu ko defee ñun ñu mun a ñu mun a ñu mun a wone suñu bopp ba ngaa di jël retraite comprendre nga fi may waxee ñun ñu mun a ñëw taxaw position bi comprendre nga waaw parce que làmb ji mooy mooy dem ba day toog foofu quoi waaw da ciy manqué comprendre nga fi kon ñun dañoo war a wane suñu bopp mm-hmm. xam nga super gour dafa war a am si làmb comprendre nga mm-hmm. waaw kon mu ngi mel kon kon kon kon daal xam nga li may ñaan rek mooy mm-hmm. di ñaan réew mi jàmm am fi ak temps yi crise politique bi am Sénégal waaw ñu ngi ñaan suñu borom def si jàmm te xam ne réew mi jàmm rek moo fi jàmm jàmm jàmm rek moo fi war a am parce que jàmm si nga lépp xaj Sénégal ku ko xam-xam ne réewu jàmm ga comprendre nga waaw yi nag toog waaye rek situation yi di xaw a am mais suñu borom dina si def jàmm nañ sant yàlla bu baax comme dëkkuñu ay ay RDC Congo yenn dëkk yi nga xamante ni sa waay rey nit ak guerre ak chaque jour que jëfee ñooñu dañoo dem bay 31 décembre sax xam naa ne duñ ko duñ ko duñ ko bàyyi xel parce que yàgg nañ dégg ay bum bum <laughs> xam nga xam nga ñun 31 décembre bu ñu déggee yenn pétard sa fit bi day dem ñee nag dañ see dëkk di si yeewu di si añ di si gontu. kon ñun nañ sant bu baax te xam ne réew mi réewu jàmm ga di ñaanal ñëpp jàmm opposition beeg pouvoir bi. Sénégal daal yaa na suñu borom def jàmm émission bi képp koy seetaan ñu ngay ñaanal wér ak gudd fan. waaw te xam ne vraiment Ibou Ndiaye lépp lu mu wax nga xam te tamit euh, euh, am na ku muy déranger maa ngay tuub di nga ñaanal nga baag ma àq rek te xam ne dañuy émission rek waaw di jéego ñun moom ku ñu xam-xamee ñu nite ak yar duñu dépassé te duñu duñu duñu duñu duñu duñu duñu duñu manqué kenn respect. parce que mbër du torox ak morom du xeeb moromu mbërëm waa mbër du toog fu ñuy néewagee moromu mbërëm waga di ñàkk ak fayda morom mbër ko ku koy def rek xamal ne yow sa nekk mbër des na yee te mbër mu nga dàq critiquer mbër boo xoogee paquetu suukar sax mosu koo jëg comprendre nga mais champion dëgg kuy bëree bëree bëri ba xam métit bi ne ci gàmb ak coono yi ne ci gàmb wagaay mbër du ngemb ba daanu nga koy xas naan gi mu war a bëree ni xam nga comme que si mel ni sama raq ñaabu ndaw maa ngi koy waaw maa ngi koy ñaanal combat bii nii mu jugee daanu na ci mais bu mu découragé parce que Zarko magam nga Zarko moo ko ëpp expérience te Zarko du cuune waaw di ko naan mu jóg taqaat ay daagam na ji waat préparé waat ñëwaat te xam ne amaan na beneen combat ci kanamam comprendre te ñëpp a ngi naan ki mu jëg nii moo gën a dangereux Zarko kon nu ñëwaat te xam ne dafa bokk ci làmb parce que tey waa géejawaay bëgg nañ ko te yàgg tax bu jógee géejawaay gi yëpp topp ko kon na jugaat te xam ne entraînement moo ma war comprendre nga ak dugaat samay mboq ñëw taxawaat wanewaat sam bopp parce que yàgg suñu borom daf ko daf ko daf ko daf ko may koo xamante ne dañ ko ko war a nangu comprendre parce que soxor baaxul xaga nga mais nit yi jox nañ ko bopp comprendre nga kon dañ ko war a jàppale waaw booy bu ndaw ga dañ ko war a jàppale di koy ñaan ak jàmm ak wér ak gudd fan te di wax waa géejawaay gi yëpp nañ topp si ginnaawam jàppale ko parce que bëgg na li def am na jom. te gëm na boppam man xam naa ci dara. combat bi passé nag tey moom ci defet jël ama neex diggante moom ama neex ñaamu ndaw ama neex. waaw ñoom ñaar ñëpp euh, seen maanaam digganteem ràmb la rek comme ràmb bii nii passé. comprends nga ñaar ràmb ji passé dafa waroon ñàkk rek ñàkk bésu ndam bésu ñàkk du bésu ndam yeneen gis nga combat yi passé. dafa ñëw jàpp gars yi duma daan. combat bii nii nga gis mu ñëw daanu. mais digganteem ak ama neex na ko jóg mu waaj ko. parce que ràmb mooy li may wax rek ku ne mun nga daan sa morom. parce que ñun ñi expérience boobu dañ ko xam mbapat da ngay yenu nit ba di di di di di maanaam sànni ko ba mu foog ne yegg na fi ngay tourné mu daw wër la ndomb nekk ki nga daan waaga fi ngay demee sax nga jiitu nit mun na nga mbot nga koy mbaar jiitu bëre moo nekk koo xamante ne nii tey nit ku ne mun nga def faux pas daanu comprendre nga mais moo ama neex di nga ñaan jàmm comprendre nga di nga ñaan a wér ak gudd fan ba ñu remplir seen contrat parce que ñaar doomu jàmbur la ni ama doomu jàmbur ñoom ñaar ñëpp ñu ñëw pour sutur gu ñu suturoo comprendre nga bëgg gu ñu dimbalee seeni waajur ak seen i mbokk comprendre nga di nga ñaanal jàmm ñoom ñaan ñëpp ama neex ak ñaa bu ndaw ñu ñu ba bés ba ñu ñëw bëre comprendre nga fi may waxee waaw may ñaanal suma raq nag mu daan ama neex jégg bu rëy. Hmm. waaw googaay ñaan. am bu taxaw yëg nga ko wala yëgoo ko. Hmm, kan ak kan. Mamadou Ndiaye ak Ndiaga Thiam. Mamadou Ndiaye ak Ndiaga Thiam waaw combat boobu tamit neex na Ndiaga Thiam. donc Pape Diop boson bi ah taxaw na. taxaw na waaw jàmbaar ak tëgg. ndeysaan suñu gën yow gannaaw boobu nag waroo ci dugg sax. waaw boobu tamit men moom maa ngi fii waa jàmbaar suñu grand papa Sow ñu ngi koy nuyu ak Mansour. xam nga di nuyu suma ménagère As. mu woo wax la waxu combat. waaw papa déggante. wax dëgg la woo wax la waxu combat. non ñu may woo mais xam nga rek mooy li ma wax rek Ibou Ndiaye aw ma programme promoteur ak ay ay ay kii. programme jàppale macha allah programme programme kii ngay doon. programme adversaire waaw mais nag papa Sow xam naa ne bu seeta seetaanee émission bi ak grand frère yi fa nekk yëpp waaw dinañ dinañ dinañ dinañ dinañ dinañ dinañ fexe combat yi combat bi mun a taxaw mais Mamady Ndiaye di ko ñaanal ndam si combat bi di wax rakk ji tamit na gaa yi na gaa na fexe ab gaa yi na fexe amaat combat parce que moom tamit dafa war a marqué empreinte am si làmb comprendre nga parce que taay bi ak euh, deretu mbër gi daw ci moom comprend nga ak ak li ne ci moom dafa war a gën a wonewaat boppam di ko félicité combat bii nii mu jugee Mamadi nag combat bi ñu ngi ci ginnaawam di ko ñaanal parce que grand frère a Mamadi dafa sonn si làmb waaye jàmbaar tamit mention spéciale parce que vraiment ñu ngi koy taxawu waaw ñu ngi koy taxaw quoi ñu ngi taxaw Mamadi te ñun ñu ngi koy gis bu baax kon loolu ñu defaral Mamadi Ndiaye euh, ñun lañ ko defaral ñun mbëru simple yi ñun lañ ko defaral mbëru séeréer yi comprendre nga waaw di ñaan tamit Moussa Ndiafat Coriace Serigne Ndiaye 2 am combat xam nga Zé Zambala tamit gaa yëpp am combat bëre. nga bëgg gaa yee gaa yi dañoo war am xam gaa yi ñu daj si mbapat mbapat dafa métti mbapat bi dafa métti. gis naa sama benn booy bu dëkk sama koñ da loos bi nga <laughs> dañuy. kii sama koñ la dëkk. <laughs> ndeysaan. Ibu Ndiaye booy fara. non fara fara ndeysaan borom Joal. sama boy la ndeysaan man tamit sama waay la fara. benn koñ fara sama waay la xam nga tax man bi gaay des fois damay daan damay bëri mbër daan ko ba pare su ma toogee di ko seetaanaat sax damay dama koy damay sama xoog du si neex parce que jóguma si intention boobu mais xam nga làmb maanaam fu fu fu fu fu fu fu fu tama tëgg. ak seytaan yi uyu ak seytaan yi ngay ànd ak yow tamit di nga def loo xam te ne boo paree ba toog ba normalaat. si ngay xam ne lii may def nii waruma ko woon a def ko parce que mënoon naa ko daan beneen façon boo xamante ne nii bañ a jël intention gaañ ko wala dara des fois ndeysaan da ngay gis si commentaire yi ñi ma xamul ñi xamul Ibou Ndiaye sax dañuy naan dafa soxor kii dafa nangam pourtant man ku ma xam-xam ne yéenewu ma kenn lu ñaaw wala bon ñëpp ñëpp laa yéene jàmm quoi gis sa bëñ la njëkk a seet da ngay ree rek borom baax nga àdduna amul solo waaw di di di di ko di ko nuyu au passage nag mbër moo si mos a bëree daal nga gis sa bopp loo xamante ne ni daal maanaam bëri nañ ba pare nga am lu métti wala noonu maa ngay jéggalu rek te xam ne vraiment waaw affaire yooyu noonu ko mais combat Mamady Ndiaye tamit kontaan naa si trop euh, la si. waaw boo gis boo ne la Mamady Ndiaye am na combat may na xale sens da nga siy kontaan. non dama ci wax parce que Mamady sama grand ga parce que maak moom mi ñu tasee même pas si biir bii nii rek tase nañ ba pat Adrien Senghor final. Mm. may ko mu jël ko. Oh. comprendre nga fi may waxee. samdi ma ma may Mamadou Ndiaye mu jël ko dimanche ma ñëwaat tasewaat ak Ondinga eh. mayaat ko. Ondinga meen ma mayaat ko parce que xam nga tax Ondinga ak Mamadou Ndiaye eh, ñooy ànd di entraîner. Ah. Ondinga ñooy ànd di entraîner di ànd di contact. Ah. comprendre nga saison saison yi passé mu nekkoon mu amoon blessure saison mi métti muy dem si ay gàmb yu bari di daanu te man xam naa ne njàmbaar gi ne ci moom ak fuga ji ne ci moom maanaam suñu borom moo ko xañ rek léegi nang man mi ànd ak moom entraînement sax ñuy dugg sama oto di dem entraînement di ñëw may bëre ji di dem suñu borom di ma suturaal may dem di ma malgré gi ma doon am as dama koy bokk ak mom, mais bi ma demee ba taseeg moom ren final non dama ne du ma fi nekk sax di di di di di di di di serse, tey waga suba ki dama ko wara bahai mu jël comprendre nga am dara ba amat kuraz. courage comprendre nga après noogaa de xoo maye samedi maye dimanche ma ñëw nag man nag ma ñëw gaay naa ma yow nag sa xoog bi yow moom kenn xamu ban nga tey weccet boobu noonu muy amaat tey dem xam nga fataat si yenn turam yi amaat courage dafa bokk si làmb Oninga naa fils de Baga waaye Oninga toj làmb ji Oninga ay amateur ñoo xam làmb est-ce que xam ne Oninga kenn dàqu ko bëree amul ku ko dàq bëree ñu ay amateur lañ làmb la ñuy topp Oninga contact bu contact bi nekkee cinq contact mm. Oninga dina ma daan kaati ma daan ko suñ paree ba toog dama koy ne Oninga mu ne waaw ma ne ko man ni ngay def ba daanu si làmb dafa ma yéem mu ne ma man mii di wax ak yow loolu ma ma jaax ma ne ko yow sa dooge ëpp na sa jëmm sa xam-xam mu bëre mm. man daf ma yéem ba pare boo demee si làmb mu am na muy demee comprendre nga mais nag da ngay xam ne mbiru suñu borom nga quoi du yaafuusam du ñàkk faydaam ñaari xale yoo xam ne gars yi bàyyiwul leen. Mhm. Ada Boy Baol ak Oninga. wax nga mbër tamit aada dama leen xam. aada yow nag xam nga ñu ada baax ada ada ada aada aada aada aada. aada booy bool ak oninga ku leen jàppale jàppale ay mbër. xanaa xamoo aada booy bool cet moo ko topp. waaw aada gi tax ba tey nii mënu am combat barki alxuraan karim cet cet a ko topp. Mm-hmm. mais aada nga seetaan ko mbapat. Mm. da ngay ne noonu kii aada toogul ni mbër mais comme si jàpp. nga nga nga nga nga denc ci kaw kooku. mais instant pour mu am combat rek programme te lépp nag ren moo ko yóbbee muy mbapat mi tey koo ne aada booy bool day dugg si YouTube bi booy boo ko fi wax day dugg si YouTube bi tapé aada booy bool ñu indi la combat aada yi mu jàpp yi di mbot ak di kii nga doo ko jël xaw nga gëj na bëre te gëj na bëre comprendre naa ñuy dox combat benn grand combat am déggoon naa ñu mais dafa war a am na xam nga di wax waa waa waa jàmbaar yi góor a soog tamit comprendre nga ni ngay taxawoo yaa ngi koy taxaw sax ni ngay taxawoo booy Talfa te Talfa fu mu taxaw aadaa ngi ci ginnaawam góor a soog message bi yow ngaa koy lancé comprendre nga jàppale aada aada aada aada booy bool champion la écrit jàmbaar bee weñal waxu Papa Sow ak suñu grand Mansour comprendre nga per ba ñu mu bëri aada dafa war a bëri aada ren dafa war a bëri maanaam koor gi buñ ci génnee aada dafa war a bëri. non le premier te aada chaque jour mu ngi entraîné. waa jàmbaar xam nga ñu ngi leen di lancer appel aada booy boog ngeen jox ko combat parce que aada doomu parcelle la te bu jugee gars yi waa mboor mboor yi. ñoom góor a sok dëkk ñoom waa mboor mboor yi ñëpp dañuy jóg parce que aada ak góor a sok ak tagfa ñoo bokk benn famille comprendre nga góor a sok seen nijaay ga kon programme bi mooy euh, aada booy boo na si góor a jàpp gars yi nañ si taxaw affaire yi nice looy tàggatoo waaw di ñaan di waaw maa ngi maa ngi maa ngi leen di sant bu di leen gërëm di ñaan réew mi suñu borom def fi jàmm di ñaan suma gaay yi nga xam te ne ñoom ngay ànd ak guddeeg bëccëg suma booy yi xam nga di ngeen nuyu di ngeen sant di ngeen gërëm bu baax di ñaanal suma grand Moussa Dioum suñu borom yërëm ko taxaaree ko àjjana xam nga di ngeen nuyu vraiment waa Thioker kontaan naa si émission bi di ngeen sant di ngeen gërëm <laughs> jërëjëf. waa noonu la demee woon ñi amoon tey Ibou Ndiaye Obali mu nekk ku baax nekk yaatu nekk koo xam ne foo ko seen ba ñi ngay ñëkk seen di wax ni àdduna amul solo ngeer Ibou Ndiaye si moom la mujjee mais tey joroon ak Ibou Ndiaye Obali combat la ndax gars yokkoon le mu bëre ndax tey àdduna ku ñu wax rek kenn mënul ku ay jàppale rek moo fi nekk Ibou Ndiaye champion dafa bokk ci làmb te dañuy wax rek làmb bis boo toog bëri woo bis bi raw na la at bi doo at jour boo romb rek sa at yaa gën a yokk kon mbëri nañ bëri joroon gëj na bëri ba bu jógee ci defet dégg ne moo daw dangu dangu ba léegi jëlal kii nga bëri moom ku la waxul da nax ndax ku la na bul jël kii adduna neex moom fekk la nga toog mu jox la ay millions kon tey bu leen joxee combat mu arrangé leen yow mbër bi jël ko aji sama cameraman maa ngi lay nuyu bu baax a baax di wax ni ñun presse bi ñoo bokku nday ñoo bokku baay wërsëg nit ku ne sa wërsëg rek ngay lekk mënoo lekk lu dul sa wërsëg wërsëg nag suñu borom moo ko xam moom mu koy mu mooy joxe wërsëg nit joxe joxewul wërsëg yàlla mooy joxe wërsëg nañ gëm yàlla te wóolu ko boo ko gëmee wóolu ko rek mu fekk si la mag ngi leen di jaajëfal yéen ñëpp yéen ñuy siiwul Cokkeen TV yëpp maa ngi leen di bégee a mag ki ko woo euh, moo ñu fa woo samedi biir ñëw arène nationale yéen ñëpp ñu ngi leen jox rendez-vous foofu noonu jërë ngeen jëf